tey jii ñun ñi fi nekk muy man di Idrissa Ndiaye eh, ak conseil municipaux yi fi nekk yépp ñoom lañ fi représenté maire dafa amoon yéene ñëwal boppam fekke lii fekke waxtaan yi ndax ni ko soxna si waxee tey boo demee Italie lu mat juróomi junni sénégalais ña nga fa juróomi junni yooyu boo ko doon seet ñetti xaaj yi Touba lañ dëkk walla ñu aju ci Touba kon warugaru Touba la lépp loo xam ne ñu ngi ci taxawu ñu ngi suñu bokk yi nekk bitim réew di fa liggéey kenn waru cee jiitu Touba kon maire mi ngi yeesalaat engagement ci loolu jotal nañoo li leen indi woon tey jii dëgg-dëgg mooy ni ñoom dañoo bëgg a fexe ba am bureau fii ci Touba ndax. nit ñi dañuy jóge fii Touba wala ñu ni leen da ngeen di dem ci ay cyber te du ñëpp ñoo jekk loolu dem ci cyber di yónnee ay ay message ñu di tontu du ñëpp a ko mën kon li gënoon rek mooy ñu fexe ba waa ñi nga xamante ni bii ñooy waa IMCA ñu ubbi benn bureau fii ci Touba principe bi maire d'accord na ci nee na leen nañ bind. ndax am na ñu bari sax ñu bëgg ñoom xamante bi sollicité nañu ni dañoo bëgg ubbi si bureau Touba mais maire nee bu ñu bindee bataaxal yónnee ko ko dina ci partager ak président commission coopération décentralisée euh, partager ci ak bureau municipal xool ba xam loolu ci yenn anam la mën a léegi bu dee ci dëkk bi moom. nee na tàllal na leen loxo ndax lu mu ni woon seew ndax njabootam gii di fi jóge di dem Dakar bu dégg bëccëg lu ni woon seew ñu yem ci dëkk bi di lijjanti seen i mbir ci dëkk bi ndax tey gis ngeen waxtaan wi ni mu guddee li ko indi mooy nit ñi dañoo amoon ay jaaxle yu bare bare bare yu ñu amoon te gisuñu kenn ku ñu waxal gisuñu ku ñu laaj tey jii bi leen yàlla dimbalee waa bureau bi ñëw fii bureau bi déplacé Dakar ñëw fii. yaakaar naa ni liñ leen fi laaj ci ay question boo ko seetee ëpp na téeméeri question ca question bu ci nekk rek question bu fondamental la ca ñoom ënd nañ ci ay tontu dem nañ ba xam ni sax réunion bu mel nii mënut a jeexal question yooyu waaye yéen ñi nga xamante ni bii yéen waa waa Touba di immigré yi maire nee na boo ngeen dalal seen xel ndax bu ñuy ñëwee dina ci jàpp kemt laay kartanam ba ñu am bureau boo nga xamante ni bii fii ci Touba ku leen soxlaati. doo soxla dem Dakar foofa ngay yëpp. ñu ngi di gërëm yéen ñëpp comme ni ko adjoint maire dafay léegi rek euh, di wax ne ñu ngi gërëm waa mairie bu Touba ci dalal bi ak ganale bi euh, di remercier si sama ñaari collègues yi ma àndal fii ñëw fii yu IMCA Dakar Abdoulaye Ndoye ak euh, Vanessa madame Dieng Vanessa Marquez dañu ñëwoon li ñu fi indiwoon rek mooy ne suñu xel dal na parce que ñu ñëwoon pour seet si mairie bi xool ban forme de collaboration lañu mën a am. Euh, pour mën a tijji fii euh, am fi benn bureau wala benn permanence bu ñu am fii à Touba pour mën a faciliter suñu mbokk immigré yi ak seeni i njaboot yi nekk fi Touba di leen éviter coono yi ñëw ba Dakar ñu mën leen leen fekk fii euh, ci Touba pour yombale leen seen kayit moo xam ñi fa nekk di liggéey moo xam ñi fa nekkoon ci génn àdduna seen i njaboot wala ñi war a dem fekk it seen i wayjur moo xam ci wàllu regroupement familial yi liñ fi gis it kontaan nañ ci dalal bi euh, dalal nañ suñu xel aussi ne commune bi pare na pour ñu def benn collaboration ak ñoom ci lu yombaloon suñu mbokk immigré yi seen i këyit ndax euh, lu kenn mënul euh, naataable ne Italie dafa ne ci ay sénégalais xayma nañ leen su lu ëpp cent mille sénégalais te boo ko xoolee pàcc bu si gën a ngande ñu ngi dëkk fii ci Touba kon dafay di day justifier li tax ñu bëgg ñëw fii xool lu ñu collaborer ak ñoom euh, gën leen yombalal li seen i euh, démarches yi ñu war def ak kayit yeeg yooyu yëpp. kon daal def naa ne si tënk loolu mooy li ñu fi indi woon te suñu xel daal na kontaan nañ tamit lool si ñi fi fekk euh, question yi ñu posé ak ñu ci leer liñ ci waroon joxe te yaakaar nañ tamit ne question tontu yi leer na la voilà ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.